te mbër la boo xam ne ah. mbër la boo xam ne. mbër la boo xam ne maanaam erreur bu ndaw boo def da koy exploité. da koy exploité. Mhm. waaw la dëgg mhm. taxawaayam boobu bu ndaw boo def dafa am lecture quoi erreur bu ndaw boo def rek mën na ko exploité. mais ñoom ñett. bi mooy ñetteelu yoon ñu daje. Mhm. seen daje bi. mu nekkoon ñoom ñetteel bi ñoom ñoom ñaar seen ñetteelu combat ñaari mbër yu doon yu xamante abaa ñoo doon daje. mais dafa am lu jaaxal sénégalais yëpp garmi ci fin combat bi.

ñom ñaar ñëpp fausse garde lañ taxé won mhm. lan mo taxone nga wax lool kon bi combat bi jexé da nga am lu metti parce que euma mo deful maninam lool nga japp non parce que tamit aussi bo ma ngi ci jégul suma staff ah xalifa ñaar ak ñëpp ak ñoom lañ jang parce que tamit aussi bo combat bi bu jex xamna ni tamit aussi ci moment bu ma bëggon jexal combat bi mëna na ci am lu mëna xari quoi ok voilà parce que man ma ngi dem xol bis bi mu réyee amateur yi ñew ak xam nga supporter yi ñu war a bëri nii ba dem. dafay xaw a gars yi namoon lamb tam lamb gëjoon fi. voilà merci man moment bu ma ko bëggoon song pour pour bëreeg moom lamb ji jeex. Hmm. moment boobu am na avertissement. te bu ñu arrêté combat bi dafay gagné. Hmm. kon dama dem dal ci koom am ak ñàkk yëpp laa dem yemale. Hmm. waaw moment dama bëggoon dem dama bëggoon asaaloo sama bopp ci combat. man bëggoon xaru ci koom kut kut kut. te loolu tam aussi su ma ko defoon mën naa ci jëlee nu ma naqaree mu nga ci daan mais tam mu nga ci jëloon naqaree. lamb la daal boo xam ni. ci adversaire mën a mbëre la.

troisième combat man maa ko daan moom mooy jël si revanche. te combat bi mu jugee tamit neexul. sama supporter du ñu ko pardonné. te damaa yaatu ginnaaw. keroog muy jugee mbaaw di ñëw ba arène bi péage bi ku ne xam ne ay dañ ko miiré mais dafa fees dal kay nit. su may génn Pikine yàlla xam ne dootuma am kattan ndax sama yaram sama yaram ñu muy tuuroo parce que ni may nit ñi di gàttaloo. Mhm. soo nekkee mbër bu bëri bu rëyee noonu ginnaaw waroo fat fataat. man la dëggeer ma déggee nu mu waxee barki yunti bi dama ne gars yi combat bi du yàgg mais ma demaatee bu ci biir ma di gar waxam na may jël sama temps ku nekk nu mu bëri nañ nañ nañ nañ ko cons ci laa xam ni oh bi mooy loolu mais mais mais la dëggeer. garmi garmi voilà garmi <laughs> combat bi bëri na waaw hmm. bëri na ay critique da ngay xool da ngay xool suma combat yëpp. Hmm. Bombardier man maay seul mbër bu taxaw xeex ak moom te déplacé wu ma. la. Hmm. waaw ba nee ma seen Bombardier lu mu wax gars yi bar bi sifflé. Mm-hmm. cinq bu ko jaxasooyee day gëlëm doo xam fu muy ñibbi. Mm-hmm. parce ko dëpp ko bu ma neex naa ko dëppee. Mm-hmm. parce dama xam ne Bombardier moom lu tax su may bëreeg moom damay entraîné bu yàgg sama xol sedd. te damay xam ni jàmbaar la. dama xam ni la. te Balla Gaye xamul lu koy gaañ ak lu ko dul gaañ jour combat. déedéet. voilà bar bu sifflé. waaw gaynde la rek du ñëw sañ-sañ lay ñëwee sa kaw. bien sûr. voilà léegi bu ñu jàppante dañuy damyee dañuy wuree. voilà foofu bëri mooy feeñ ak xam-xam. bëri voilà combat ak Balla Gaye moo nekk nii. mun na ma daan. Mhm. voilà gisoo ñu mhm. daje. da ngeen jeer de gis nga gis nga laa ngi tàkk de. Mhm. Eh. parce que ñoom ñaar dañoo daje. waaw gisoo gis nga dalaa boor nga tegi mboot mi. waaw non dama ko sëñaxal mu mboot. waaw ko sëñaxal ah. voilà ba Balla ko bu woon pëtt xër. waaw gisoo combat ni demee. gisoo. moo yi métti na de. waaw ku xaalisu mbër yombul de non dafa métti parce que gars yi dóor rek la ñuy gis way cant moo gën a yomb jël xaalisu mbër yi <laughs> làmb gars yi jour ji la ñuy la ñuy gis mais ji nga préparation combat mm-hmm. fii yaa ngi wax kos rek mbay waaw li Thierno wax ziar mm-hmm. nga préparation komba dafa métti jinga nga mbër luñ ko fay rek fayuñu ko mm-hmm. waaw pour ma wax la man tey gisoo benn mbër bu bëgg doomam bëre nattu rek dañ koy def parce que yalla mo tudd dañuy béré du mhm. dëgg. Mhm. mais lamb dafa nek pom jambar mhm. euh, ba pare làmb. dafa nek sport bo xamné manam der dëgg moko mën mun def. parce que lu toll ak 6 mois da ngay entraîner ta entraînement bi yépp say bokk dañ lay ñaax. ci bénn bëss kassé ci bénn nit ci ay waxtu. wa nga war si ngemb ba paré sa bëgg-bëgg yëpp dañ koy arrêté manam 8h 9h da ngay nelaw. 5h du matin da ngay daw 8 km wa da ngay daw 8 km man 8 chaque fajar may daw 8 km chaque jour wa chaque suba. ba pare wa 3 séances ngay def par jour. boobu man ba paré xétu lekk yi ngay lekk dara du ci saf. Aha. da ngay def bilan ñu xol sa yaram xol li nga manké jël sa nga def bilan. Hmm. so paré dañu xol sa cardio xol sa lépp après nga lay dañ lay daw lu tollu kay matin bi ngal teud ba pare da nga war a lekk ay sept fois ci jour bi. da ngay lekk sept fois ci bis bi sept fois waaw. kon léegi bu la joxee avance balaa ci bis combat bi xaalis ba jeex na. waaw non sept fois xanaa. Euh, seeni euh, soxna tabarkal lekk ah. du bëri ah xaalis lañu. non dafa bëri yu fayee ko ay cent millions lañu. Eh, def leen ndànk xaar leen régime alimentaire. du ko am balaa parce que ñun ñetti repas la ñu xam. waaw kay kañ ngay lekk ak looy lekk. voilà xam boo yeewoo dinañ la dinañ defal la nen mais blanc bi quoi du am jaune bi. Ah. dañ koy dindi blanc blanc bi rek. mooy dindi jaune def bi voilà. nga lekk blanc def bi rek ngay lekk. voilà voilà omelette ko. waaw omelette bi mais omelette bi ak diwliñ olive. te diwliñ bi du tànk kon nu mu ko waxee sànq. day nekk ci diggante tàng ak du tàng. ba pare warul am ay kii ma kii yu demee